Ousmane Sonko liñ ko commencé woowee nii te moom feeñ ci campagne bi mhm. mooy euh, nu ko al mujahidin ak xuzu waa xutbu waaw boobu euh, loolu bëgg naa ak borom turandoo yi borom turandoo yi bari na fu mu dem dëkk bu mu dem Euh, puuf benn xale ne tondoom la mais foofu dama bëgg ab Mati Thiam Diogo moo doon borom bàjjee bi comme moom ñoom lay concurrencé waykat yi ay concurrence antel gis naa ko mu tontu euh, ñàkk fay ba tey tontu Cheikh Abdou Bara de li naan di bon bonde xam nga moom mm, dagg santel ne il est dans les détails fu ko nañu di xaar amul xam-xam waaw fu ko nañu di xaar vraiment ci programme ci auteur waaye bàyyi benn wax ñun ñii buñ ko gaarawaale sànni ko benn pic dana fexe dof dof la ba tontu ñu mais mais abu dama bëgg nga revenir ma ci ñaari terme yooyu pour man mi nga xam ne profane la ñaari terme yooyu ce que ça fi beneen bi dama lay boole ñetti laaj euh, beneen ba ca des mooy euh, docteur Babacar euh, suma assistance ma fàttali ko pour sénégalais yi dëgg-dëgg plateau médical bu am solo la woon mm-hmm. man mii xam naa fàtte nañ ko ñoom ndax jamono yooyu Euh, euh, urgence laa fa ñëwee woon hmm. euh, ci ci ci làqatu laa fa duggee woon mais def naa fa def naa sama registre nga fa def naa fa benn dix jours boo xam ne def naa c'est la seule fois c'est la première fois bu ma jàppee ne ci la feebaroon dëggantaan te boobu dafa urgent ba nga xam ne génn Sénégal def naa fa dix jours entre 2013 2012 2013 muy plateau médical bu relevé woon. mais ci Covid bi brusquement euh, docteur N'ya envoyé télé et ça c'était une première malheureusement quand euh, la presse est presque morte au Sénégal euh, lu ñu man à l'époque TFM téléphone une fois devant téléphone en tout cas sax ci Sénégal parce que dama posé une question quest qui fait courir le docteur Niang mm. parce que quand un docteur euh, jiite lu mel ne euh, suma assistant nga sopp lu nekk activiste euh, di dem ci plateau télé yi descendre le ministère de la santé lu gouvernement après nag bon ba ma waxee loolu ci laa am ay information yu bari parce que ñu bari woo ma dem expliquer marché ak neex-neex bi nekk ci biir marché Covid bi ak affaire yooyu ak yoo xam ne moom amu ko nangam nangam après ni mu commencé na ndax ba Covid bi jàllee mu commencé nag di di dugg nag ci yëfu Sonko euh, nit ñi euh, di si commencé bàyyi xel événement mars deux mille vingt et yi ñëw waa Pastef fi yëpp solu fa moom ci la génn daal di xamal nit ñi loo xam ne musuma dégg mhm. mu am ci benn parti politique mhm. ne dafa am convention te loolu enquête ba bu leen faat bu kenn fàtte ne def nañ ko fi garde à mhm. ca ca ca PV bi lañ découvrir ne moom ndekete dafa am convention ak waa Pastef mhm. pour euh, seen blessé de guerre yeeg yooyu mhm. ñu nekk fa euh, comédie bu bu ko defoon tamit ci tappaleem boobu empoisonnement xamal ne lan foofu la ci da am ku gaañ ku ku blessé wu dem ba foofu mu ne du ko laal ndax bokk bokk Pastef donc euh, Abou deuxième laaj bi mooy revenir si euh, euh, docteur Nia, ak vraiment complicité bu à tous les niveaux bi nga xam a bénéficié ba mu pour opposition ba facilité endormissement du peuple ak son accession au pouvoir ba ca des aujourd'hui, euh, aujourd'hui tey Euh, suba la mooy huitième jour début campagne électorale bi euh, donc une semaine de campagne bi de campagne yi abu euh, taxawaayu Sonko bi ak communication nga xam ba tey jii une semaine bii kenn dégg ko mënuñu bu ma amee majorité assemblée lii laay def lële du ma ko def naa soppi lii naa soppi laa lu dul jox lu dul xaste tontu dàggasante kese ñett yi laa la booy laaj laaj la non xam nga euh, l'exemple de